yéenekaay yi El Hadji Ousseynou Ndiaye dalee na jàmm ji xibaar yéene kaay yi nga xam ne nag moom la xëyandoo lu waaye mënul neexul te loo ragal dalay gaañ ci ñaxtu yi bi duñu xamale ñoom kay flyers yi laa wax séddale nañu ko ba mu saf sàpp laa kaay la leen bi mu demee maanaam xam ndax kay collectif ñoo lànk ñoo bañ ci kàddu yi nga xam ne daal dañ koy distribuer maanaam daal ñu yi fépp yéene gi duñu xamale jamono ji daa mel na nguurug Sénégal ñoo dellu ginnaaw laa la taxawaay bii xam ne daal amoon nañu bi dañu xamal démb kay ñi nga xam ne rek ñoo nekkee ci commissariat bu central yéene kaay bi di ñu xamal démb kay ñoom daal amuñu defuñu lu dul leen seeni bët maanaam daal di surveiller yi nga xam ne daal ñoo doon séddale flyers yi waaye kenn dammul kenn kenn dóorul kenn lu témoin fukk juróom-ñaar groupe bu def ñaawteef yoo xam ne rek tas nañu leen toll ci ñeenti téeméer rek fukk juróom benn ci ay nit yoo am ne jamono ji defeere nañu leen wala loo xam ne jëm na ci wàllu oto lu toll ci téeméer ak fukk ci ay oto yoo xam ne taxawal nañu ak lu toll ci yoo xam ne rek jàpp nañu leen waaye nag fàttewuñ ko loxo nii la ko journal bi bindee te jamono jooje yéene kaay gi duñu xamal ne lépp loo xam diggante Moustapha Diakhaté ak ñi xam ne rek ñoo nekk APR borom mànkoo taxawu sunu APR yéene kaay gi duñu xamal ne moom Moustapha Diakhaté daanaka daal sëy ba nga xam ne rek moo joxoon diggante ma APR mu mel ne nag dafa tas ak lu mën a xew daal laas yéen kaay duñu xamale moom mi nga xam ne rek moo taxaw li nga xam ne rek man mel ni luy xar laa di xotteeg ay jafe-jafe yu bëri yoo xam ne rek dañu koy nemmeeku boola dàq gi nga xam ne rek dàq nañ ko Moustapha xajaxte am na ci jooje yéen ñu xamale coronavirus ji nag ñoo nekkee ci OMS di organisation mondiale de la santé daal ndaje gi nga xam ne daal amoon nañ ko ba lépp loo xam ne rek jëm na ci virus googee nga xam ne mooy coronavirus maanaam maanaam daal du law ci àdduna bi yéen i kaay gi xamale jamono ji nag Sénégal ñi nga xam nag ñoo di kilifa ne gannaaw ba ñu ko dóor bu ñu bëgg de ñuy doomu Abdou Aziz américain mi nga xam ne daal songu nañ ko moom doom jojene gannaaw ba ñu ko yóbbu fi nga xam ne moo di hôpital fa la mujjee ñàkk bakkanam bu dee papaam nag dañu ko dóor ba gaañ ci Sénégal bu ñuy wax réewum teraanga àndut ak ki bale fete a ki dóor ba suba